عين نبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تصر مصفان به كفيت ماسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمه ahmadu ala xuruj min darar wa kulli su'in wa ana in wa xarar wa kulli su'in wa ana in wa xarar askuru sukran yajur zayda bisrin wala yajur nahwi kayda hamdan wa sukuran la sama burura rabbil wara wa sanza khurura fa khumtu nasiman lisil muqaddama musalliyan biya ala man khaddama mutajiyan kami khadiman asana تفوزا بالمغر حسنا مدمزا من مالك أينفع بالذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى زلا عليه بسلام يصفى نسما مباركا يقل أصابا كما لسي كابدني أصابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله زميتها في آجل كآجل لراخب زميتها زميتها جالبة المراخب في آجل كآجل لراخب خدم صرفت خدم صرفت للمراد خائلا ما صفائي بايتا أو خائلا إن الله wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allasina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman labayka rabbi wa saadayka wal xayru kulluhu bi yadayka abduka raaji bayna yadayka musalliyan musalliman ala akramil xalqi لديك خائلا يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة من كان خبلي وارفع نزامي za juudan wa takrumatan wala taruddan oya musibal ilali duman nisama ila sansa bi khadan wala taruddan oya musibal khalali shawaka lam arju fi sirrin wa fi alanin bi haqqi wajhika حقق لرجاء أنا لي يا ربي كلي وخذ لي بردا خردي وما التمس بجاه المنتخى أنا لي صلي وسلم على المختار في الكرمة وبشرنا بنسمي أفضل الرسل أي سرين توبا مبكي nasraan bi daan xëble nasraan bi daan xëble ngir ak bari doole budul konok baayub sëriñ saaliw ñépp dem tugal nee doon konok demam gii wolof nasaraanu te kon bilaay ñépp dem niraan bambaane caster ba sëriñ musaane bambaane caster ba sànni ci gi ja daa di leqaam kabar daa di julli te sabaar ñun danoo noon yaa ko génne néegi Mbàkke baari sandar masa nga naan ko dar ngay jaare bàyyi Sëriñ Fallu jaare ndar ndar di bëgg mel néeg daaru ñu daldi koy jallax mu way ndakaaru boo xalamee yaari guddey ndakaaru bu dégg wax jëmbar ba wax nga waarum isaa sakartu saalikal mabiita wa saalikal amina wa sabat taarat ilal jaadi bil armaayi nafsi walakin saba maayi تارت إلى الجاد بالأرماء نفسي ولكن سبأ الماء تارت إلى الجاد بالأرماء نفسي ولكن سبأ الماء نون ياكو جن فوفا يبو قلوا مسخ فجرم ياريات تي بلوام دمنا كنا كري ba dem maa yomba te mos la yox ba del si Tuuba kesoog fital mbaa karawaas mbaa jaasi du tee Tuuba di way kiraasi fii laylatil jumaati lañ ko tabal ca néeg bu lëndëm noon yanaa ko lambal maami seexa boo lamb daj ay gobar ak ay rabb ñu tëj ko foofa dem mu des fa ak rabbu ak boroomam mu daadi jublu xibla daa di kabar nee na keroog mënta sujjoot ngir tar-tar Cheikh Bamba nee keroog sëriñu Cheikh Ibra Fall nee keroog jàng na fa saaru baqara ak imraani jibril ñëw tijji buntu balil qur'aani Cheikh Bamba nee na keroog gis na fa rasulillahi mu dee kolal dee fu ko xam billahi Cheikh Bamba nee keroog gis fa sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daaram Serigne Bay Jaxate ne ku toppatul yàlla bul dee ti dem di ko may mu yàlla rëy na tàddee dem naarit woyoful ku toppatul yàlla bul deeti dem di ko moy mu yàlla rey na tàddee dem na naarit woyoful kursib sëriñ si man jàpp naa Cheikh Fallilou kursib sëriñ si man na naa Cheikh Fallilou ku peeg murid yi man wettina Cheikh Fallou man saab teg du niil gannaaw bu fas yi teere saab ku peeg raw ci yi man damay maarem ku sopp bàyyi Cheikh Abdou Karim defal nii nu màggal ko saab ku peeg raw ci fas yi man damay maare Serigne Fallou yàlla faale sëñ bamba dal koy faale ku bamba ko faale sëriñ fàllu ko faale sëñ bamba dal koy faale ku bamba faalewul bu leen ko faale alxaaji malik kooka mooy na jaayam sëñ bambay baayam sëñ fàllu moo yaaram mooy jarbaatu mam Maodo mbégum tiijaan yi def nii nu màggal ko nu teral tiijaan yi lor su na bitik yi fees na Mbàkke ñépp am nan barke ku weddi laajal ku weddi laajal Seydina Maamuna million la jox Mustapha may la mbaate nga ko seexi Moustapha million ba teg na laf na ngeen ko may paal alxaaji Fallu Mbàkke bul nu fàtte koo fàttewul Mbàkke mbiram ma du tardeen koo xam ne kii la Moustapha boon ci amawam sasin moo ko ne cas dal ne wërëñ di dasta si la Seex Bamba doon xalam ci amawam sasin moo ko ne cas ne dem na Makka dellu koo xam ne kii mënulaa xëy wër ci niir yi di woy noo mën a toll yoroo ndombay sëriñ baaram koo xam ne kii mënulaa naan géej gi jën mes toppal ci Seex Ibra Faal santum sëriñ baara ahmadu faal sayer njaayi biren njebe ma cangayi kur jëg baayu lalla faal maami seex moodu fallu faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal ku sopp maami seex moodu abdullahi faal ndar seex ibra faal xemem la man moo tax ma doon sa faal faw ci baatin lampo yaa may suturaal Seex Ibra Faal yow ku la gëm julli na julli juróom woor weeru koor aj makka amoo morom faal Seex Ibra Faal yow ku gëmul ba faatu yow mal du tabbi aljannaatu Seex Ibra Faal yow ku gëmul ba faatu yowmal xiyaam du tabbi aljannaatu keroog ba seex bamba neen aljana tey ku cay dem du ñàkk tey jii ku ca dem moo ca dem moom day sëñ baara mam soxna awa buso moo doon bëgg a dem mu toogal ma dem demaa lela te nga yor seex fallu ak baaram ba soxna amintalom bay ko foofe di toggi reer ca marax la daa di wàcc liggéey woor na sëriñ baaram keroog la bur yàlla naan ridwaanu nag ma ubbil aljana tay ma te xel juru seex baara bay seex maxtaar keroog la bur yàlla naan ridwaanu nag ma ubbil aljana tay ji ma te waajuru Cheikh Baaram ridwaan di wër bunti aljanay ubbee kaafal boobee ba tey tëjagul ngir xeetu sëñ baaram jigéen wa aljana waaj yor seen wurus di teeru soxna amin taloom sëriñ baaram maam soxna awa buso moo des foofee di seddala ngor diggante Seex Moustapha Mbàkke Sëriñ Fallu ak Sëriñ Baara looloo waral ba Sëriñ Tuubaa xëyee ni meles Seex Moustapha wuuf Sëriñ Fallu ak Sëriñ Baara Seex Baara nag def na fi lim war a def am na fi lim war a am jur fi ñu baax ñii mu jur wàcc na moom baaram Cheikh Modou Baara na leer yey jolli tabbe aras moo taawoon guy mbind mooy taawub Serigne Baara xar baaxi njoloor la daa moo ba xëy ne meles te xar xarub doj la daan wax nit ñi sëñ baaram njaareem bil mu na بالمناجات وأبدا أغنى يدي أنوات دل علي العلماء علماء والأولياء من لا يساه هو والأولياء خذ سيدتي فاخ خزانتهم خلع تقاد بدر خير المرام فدياتي مؤجلة من كان مناسئا وصار ملك متوجه نصار الله يبلاه لا إله إلا الله يا سعدا في المال قل ثروة يدير بالمال خالد يزيد بالمال خالد في المال خلص ثروة سائركم أبخي بالله لما لما لما أرجو لما أرجو لما لما ما أرجو حمد وشكر لمن كل بي سارح لؤلؤ دندو نسخ تين سر سارح آه آه ثمان بلا سخط مؤتلي من بني ديمان أنصارا ديمان أنصارا لله كل لدى أبر مكرمة من أنطالنا وفيه عجم من سارا إن الذين إلى سرسار خلق صدو سيارتي فرخو داريني أوزارا جاري أوزارا جاري أوزارا جاري أوزارا أوزارا داريني أوزارا أوزارا داريني أوزارا أوزارا داريني أوزارا وقلبه كأولا صدات موتي تبكي أرادي عليهم كسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء قدر فرعون من في خابه بالعلاوات يا لا أدري على فخدي يا كابر من خابوا لربي داهم للقلوات تبكي لياليه عليهم أسرور من الأسلح doƴƴin wolko dooti kanu ibadat bi tooti wi rabimo wo kana jallala um rabbal bi minati kano yuduna tarkal wirdi masiba in minana laaley minanat babil musibat kano isa laylu jarama siriñ saliw mbakke ñebe nderay jaayan ñuru la koy jooy am ñi jaanay jooy sëriñ saaliw bisu aljuma bisu aljuma yéeme moo dem li moo fab sëriñ saaliw mbakke dimam gaa ka xotti baax kenn xamatul kii sëriñam kenn xamatul kii taalibeem lu oo mu mel ni xadax li daal doomi adama ngi jooy kenn xamatul fi Serigne Saliou aw Serigne Saliou Mbacké malaaka yaa ngay wer këram bu sellu gaay te naan maam Saliou xanaa xamoo ne bur yàlla moo nu mu nga naan leen li mu nil mulki yow mal waayi dul xawaari man Serigne Saliou Mbacké bu ma faatoo yàlla saa borom mooy wane ak magam waaye man Serigne Saliou Mbacké sañ na maa rambu ëllëg yow mal xiyaam bu ne tey jiney malaayika ñëpp teewee sëñ Bamba mu di kaalam yooyee ñëpp xam ne mooy waaja waaye man sëriñ Saaliw Mbakke waaye man sëriñ Saaliw sëñ na maarambu képp kuy wax asadu an laa ilaaha illallah wo wa asadu anna Muhammad rasulillahi te naan leen xanaa xamoo ne yërmande sa borom mi wàcc bi jaam ñi mu ngi jaar ji sama loxo bi mën a sëriñ Saaliw Mbakke sëriñ Saaliw ay fan lan ja teg mu wuy ji boromam déglul ma wax la ña waajal ca biir këram sëñ Amdi Buso ak sëñ Ajaxate sëñ Amdi Joob imaamu sangu baax ka saaka sëriñ Saaliw Ture mii nekk Cees tey ku gore xoolam baa ko tere mu dellu mbakku buntu ba doomi magam sëñ Muntaxa moo julee sëriñ Saaliw Mbakke sëñ Muntaxa Basiiro moom de moo julee sëriñ Saaliw rongoñ yaa ngay tuuru di dal ca baay xolam baa ngay bëx bëxeey ñu naan ko mbake lu waral lii mu nga naan leen bu nuy jébal Serigne Saliou boromam boobe jëmi Serigne Touba ja taawu ñaari loxoom te naan jébaleen ma Saliou man Saliou sama doom moom de mos nay naan ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ma yermande jërë ngeen jëf ñu tub bu baax tey jéggulu